ndaw naa ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur du ñaanal sama papa yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di ñaanal sama yaay yàlla na ko si yàlla bàyyi mu gën a fekkee sama njëriñ di ñëw sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax di santaat sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax di santaat sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax di sant njabootu sëriñ Fallou yëpp di sant sëñ Ateex Mbacke sañ Tàkko sëñ Afia di sant njabootu sëñ Fallou yëpp di sant sëriñ Saliou Mbacke bu baax a baax maa ngi santaat sëriñ Saliou Mbacke maa ngi sant seen sant bu baax di sant sama papa ju nekk ñëpp maa ngi sant plateau bi di nuyu sama adversaire maa ngi ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama doomu nday Malo Seras yàlla na ko borom defal jàmm naan ko nii la ko bëggee woon muy roi des arènes maa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom mottali jërëjëf. ama daje bi yàggoon nañu ko bëgg mi ngi soog a am tey looy wax Modou ak ne sa doomu ndey nii la ko bëggee woon roi des arènes. nga war a bëre combat boo xamante ni roi de arènes nga ci war a dajeel wàccaay bi ak foo ci toll. waaw champion mu dama koy sant bu baax a baax dama koy sant bu baax a baax di ko ñaanal jàmm xam na xëy na nii rek la mënoon demee ni boo ko yàggee topp yàggaa bëgg nii rek la mën a demee waaye nekkuma noonam nekkul sama noon di ko ñaanal yàlla ko suñu boroom defal jàmm du ko ñaanal lépp lu mu bëgg si làmb bi yàlla ko suñu borom kàttanal dooleel ko ba bis ba maa ngi koy ñaanal jàmm. xam nga di sant bu baax a baax di sant nag waa Pikine bu baax a baax di sant li Nicolas bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ñu ko ñun ñii yëpp lii lañ si bëggoon tey muy sama supporter yi ñu doon wax yow xëy na xër rek waaye lii ñun ñëpp lii lañ bëggoon di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal Lions yi yàlla na leen suñu borom may ndam suba bu neexee yàlla ñooñu ñaan yàlla na leen suñu borom may ndam jërëjëf. amaa nit boo ko yàggee topp yàgg koo bëgg ba war a dajeeg ba war a dajeeg moom la ciy xaar. ak loo ci war a jëf seen i kàddu. waaw lu xaar xam naa ko lu ma si xaar xam naa ne champion la waaye man <laughs> doomu champion la xam na di ñaan yàlla nañu si borom defal jàmm. le treize doomu champion war a bëreeg champion. waaw champion la xarañ la champion la loolu biti la fanaan maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal sama mbokk yi di ñaanal waa gine bu baax a baax di leen woo si combat waa Guinée waa Sinthia Ousmane waa Sédhiou Sebe Ponka Yoroba Kounda xam na maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Kolda bu baax a baax a baax di gërëm nag waa Wal sama dëkk turandoo Kaolack maa leen gërëm bu baax a baax di gërëm waa Jolof maa ngi woo waa Jolof bu baax a baax a baax fépp pulaar nekk rek xal pulaar nekk rek maa leen woo sama combat bi. retraite yàggatul moom loolu muy bamp jarul mu koy bamp xam naa ne day xam lu mu yàgg yàgg dañuy xeex ma ak moom jarul mu ma koy sax jarul mu koy def sax sama xel. xeex bi mënul ñàkk. Modou Lo lekk na ay millions musul dem Ardo. musul dem Ardo te lekk na ay millions tabax na si kër. yaa ko bëgg a yóbbu Ardo. day dem. Modou nee nañ di dem Ardo. waxu mbër lay wax rek Malick. waxu mbër lay wax wala li mu gëm lay wax. mbër la mbër la. mbër la waaw kay. merci <laughs> mais des tiim la nga kontaan di wax rek mais lu muy wax moom sax gëmu ko. li muy wax gëmu ko da ngay wax ni rek mais gubu xol bi loolu gëmu ko kii sañul xeex ak man. sañul xeex ak yow. non Ama nee na sañoo xeex ak moom. vraiment kii comédien la waaye bu taxee naan bëgg naa xeex moom ñeme naa xeex moom. du kii comédien la léegi quoi comédien la bu war ndaree xëy naan ama ah, ndax kii na bari kii Serigne Fall mosul dem ardo kii maa ko yóbbu ardo day dem siyaar ardo par force ma dookaat jàpp ba si kaw daan ko Modou bu bàyyi ko wax ji rek <laughs> waaw naan sama supporter yi euh, tey lii dañ koy yàgg xëccu pour bëre Modou Lo depuis sama premier combat kon ñoom di leen ñaanal rek nañ taaral bis bi rek ñoom ñëpp def maas ñëw xam na ñu ñaan yàlla yàlla bu am jàmm rek yàlla nañ suñu borom defal jàmm Mm-hmm. aywa am naa am naa benn laaj. te xaaral xaaral xaaral tonton Pala. maa ngi ñëw ci tonton Pala